bu ñu dénk agriculture ak équipement rural Aly Ngouille Ndiaye amal na visite ci entreprise qualité végétable Sénégal muy ab société buy yëngu ci wàllub mbay nekk ci commune bu Kër Mousso ci département bu cees li muy gën di bay nag mooy soble ci loolu Aly Ngouille Ndiaye di xam ne ni ci feetu tabaski bi marché bi dina am soble bu baax. Euh, gis nañu investissement yi ñuy def am na solo euh, gis nañ machine yi gis nañ également nit ñi fiy liggéey notamment jigéen ñi bari nañ gis nañ également production bi parce que xam nga tey jii nii ne yaa ngi dëgmal. Euh, tabaski ñu ñuy wax ne peut-être soble mën na sax ñiy xalaat ne danañ war a indiwaat soble jéggi bitim réew ndax pour bañ prix bi yokk ñoom ñu war a génne déjà juróomi junniy tonne soble donc loolu day am solo ci ci ci ménage yi par rapport ak li nga xam ne lii ci lañ jëm. bu ñu sukkandikoo ci directeur bi màgget Niang qualité végétable Sénégal yamul rek ci mbayum soble ndax am na yeneen i produits. mais ginnaaw soble ñu ngi fiy béy xaal ñu ngi béy kànja ñebbe gerte. maanaam légumes yëpp ñu ngi koy bay ba fële sax nga xam ni terrain bi dafa xaw a accidenté ña nga fay def mango. Euh, c'est pour dire tout simplement fii ci zone bii ñu nekk xeetu mbay bu nit bëgg rek mun na ko fi béy xam nga xeetu mbay mi euh, dafa laaj koppar bu takku parce que fii nii euh, dugal nañ fi diggante 2019 ak tey dugal nañ fi plus de 4 milliards 500 millions. entreprise bi mu ngi employé ci lu toll ci junni sénégalais Aly Ngouille Ndiaye di woo yeneen i sénégalais ñu investir ci genre projet yi nga xam ne dina indi wàllam ci li ñuy wax sécurité alimentaire ba noppi dina wutal ndaw ñi xëy.